avec un manteau sur le dos et deux sacs de voyage. Vous êtes prêt à partir hein Oui. <laughs> j'ai envie, envie de décoller. Bijou loolu ñu mën a wax si I Wanna Be Free bi nouvel album de Wally Ballago se ki va sortir le 6 octobre. ah album la boo xamante ne euh, non seulement c'est une première euh, déjà on prône à ce que euh, nit yi adopté ko déjà first time bi loolu la pour euh, ñu marque marquer suñu empreinte déjà. parce que tamit am na ci benn stade bu ñu jugee am stade yoo xamante ne moom la ñu dëgmal et on veut vraiment innover internationaliser même euh, euh, moderniser parce que I wanna be free daanaka lii si ëpp afrobeat la donc on parle automatiquement de modernisation euh, euh, je, je parfois maa ngi dégg gars yi di wax euh, xam nga seen yéene bu rafet rek la ñu am parce que defe naa yéene nañ ko artiste bi mais comme c'est une première Euh, li ñu gën a bëgg rek mooy à que ñu xam ni carrément l'artiste il est là il est présent et il veut vraiment innover ah jóge am fu mu jóge am fu mu dem mooy tax euh, li nga xamante ne peut-être on temps vers yooyu yëpp ñu ñu yéene bien sûr mais nag fokki suñu sax si loolu defe naa ni que wax dëgg yàlla bu yoon jeexul waax suuf di jeex te defe naa ñu gën a xam li ñuy liggéey moo ëpp importance ah ñu fexe imposer wu carrément ñu ciy xam ni que wax dëgg yàlla Wally ne joue plus et que c'est pas des histoires de ni ñu koy tuddee ah de <laughs> c'était ce n'est plus des trucs de Faramareen là qu'on dit ah maintenant euh, c'est c'est un autre mooy li ma wax sànq rek on veut vraiment innover ah s'internationaliser euh, de fexe mu lépp rek mu nekk ñu teg ko ci modernisation boo xamante ne wax dëgg yàlla gars yi dinañ xam ne wax Euh, Wally jóge na ci point A te mi ngi jëm point Z certes la perfection n'est pas de ce monde mais on tend vers la perfection et on essaie de faire de notre maximum ah pour suñu artiste am fu mu jóge am fu mu jëm donc dañuy ñaan yàlla ci yoon boobu noonu lépp loo xamante ne musique da koy maye mu fekk si ko ah parce que wax dëgg yàlla way bi la ah te wax dëgg yàlla talent baa ngi fi fit baa ngi fi il essaye il nit kese la mais mi ngi jéem mi ngi ci yoon bi defe naa ni que ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, les gens euh, moom il est vable certes envers la population sénégalaise mais nit ñi nga xamante ne jàpp nañ que ñoom ils sont redevables envers yi ñoom la ñuy xaar ñu daal di jënd CD yi xam naa ne ëpp nañ ay millions donc euh, croisons les doigts c'est une première yàlla baax na ah lépp loo xamante ne xéewal la rek mu war ko am ci lii yàlla na ko ibbil porte yi nga xamante ne yu fooxee njortam. Euh, <laughs> mais ñaata artiste ci monde bi ñoo génn ñaata CD te amuñu disque d'or mais ñun yéen la peut-être ñoo ñu di wax ñëpp moom la am ci Wally Ballago Seck mais vraiment vraiment vraiment ñun li ñu gën a bëgg man boog personnellement certes Wally ëpp na cinquante mille et quelques personnes yu koy seetaan il a plus de cent mille mais Wally a combien d'abonnés sur sa page YouTube donc donc ëpp war na ëpp sax disque d'or tu vois mais euh, xam nga nag Sénégal dafa am état d'esprit boo xamante ne tàmmuñu ay prépayé tàmmuñu jënd peut-être que nag euh, communication bi li taxoon ñu gën ko tendre vers gars yi dem jëndi carte commencer am habitude di di mën a cher euh, seen ay artistes au niveau international parce que Sénégal ay carte bancaire xam nga doxu fa mm. donc yooyu yëpp il faut que ñu commencer moderniser suñu bopp waaw parce que foofu actuellement defe naa ni foofu la ñu jëm euh, et euh, comme ni nga ko waxee rek polémique boobu comme dégg naa façon bu nekk da ngeen a jël disque d'or bi teg da ngeen nangam disque d'or kenn ko jël di ko teg lu ñuy jëndi la te amul ndaxaate lu ñuy produire la nombre de CD bu toll noonu ah euh, foofu xam nga ay pirate amu fa dara amu fa donc euh, euh, dañuy ñaan yàlla rek euh, lépp li nga xamante ne moom la ko Sénégalais yi nit te mébét boobu moom la ñu parce qu'il a travaillé dur pour en pour en arriver là c'était benn sélection boo xamante ne c'était très serré très compliqué Believe a choisi 20 morceaux mais c'était plus de 32 plus de 30 même donc sant yàlla donc ça reste ça vient donc yooyu yëpp dina ñëw ça va venir incha allah dañuy ñaan yàlla rek fi boo xamante ne wax dëgg yàlla ñu génne ko ci jàmm et que on passe à autre chose parce que ça reste beaucoup de euh, choses d'autres à faire. cousin loo fi job bi. waaw kontaan na ah sama sama cousin jël si nga ma tey ànd ak sama frère Gap kontaan na trop trop trop trop. je suis trop fier am naa ci contentement ah liggéey bi tàmbali na maa ngi doog egsi ah teewu ma sax sama bagage. <laughs> ci oto bi la solo. parce que normal c'est Alors les gars, là, on est sur le livre. on est là chez Thiey Ndakaaru 2 avec Pascal le de la communication du gouvernement de Waly Balago Seck. un Faramareen un CD disque d'or par waaw mais kii du Cissé. Pascal. waaw. Faramareen benn disque d'or. ah Malick gérant le Pascal. Bonjour, c'est Mariama, je suis étudiante en troisième année. Euh, allez votre précommande et vous programmerez un Bonjour, euh, c'est Aïcha, je suis étudiante en deuxième année en finance. Allez votre précommande, on en CD. Salut, moi étudiante en dernière année de master. Allez votre précommande, un Merci les passer là Je ah, parce que xam nga lu tax ma jël ñaari seede. Hmm. benn bi dama ko jël ngir Wally Ballago Seck. Hmm. benn bi ma jëlal ko suñu papa ji ñu bokk. ndeysaan. kon Ballago Seck moo tax ma jël ñaari seede. ndeysaan on se voit SMS dès merci beaucoup madame. merci bonne bonne soirée au la grande sœur a fait sa commande. Euh, madame. madame. Hein? Merci. Je vous en prie. Euh, je voulais savoir la grande de faire sa précommande. Elle en a fait deux. mais grande sœur mën nga ñu expliquer lu tax nga jënd ñaax waaw Pascal li tax ma jël ñaar mooy benn bi dama ko jël ngir sama rak. Mhm. sama doom sama xarit. benn bi ma jël ko ngir ki ñu boole. muy Papa Thione Ballago parce que bu fi nekkoon tey heure bi moo fi jiitu comme nekku fi te moom moo tax nu bokk moo tax ma jëlaaleel ko dama paax maa jëlal Papa Thione benn CD moo xol nay xol na la grande allah parce que tey ndeysaan mi ngi jël pour boppam jëlal papa jëlaaleel vraiment Fatou Fall Balago du hasard lu tax ñu tuddee ko Fatou Fall Balago asalaamaaleykum des Champs-Élysées Paris huitième rendez-vous pour képp koo xam ne rek doomu sénégalais ko yàlla defal nañu lenn la loo xam ni adduna bi yëpp ko bëgg mooy am sa doomu réew muy ñëw indi alkooli fii pour lan pour disque d'or yàlla defal na ko ñëpp du artiste yëpp lañ koy defal comme nag yàlla defal nañu ko Wally Seck dem na ba toll foo xam ne dafa indi album moom fii la FNAC di ko jaay pour disque d'or donc yaakaar naa ni sénégalais yi ñu nit nañu wane suñu bopp benn sénégalais benn CD nañu xaar te xam ni tey yàlla def na Youssou Ndour jaar na fi tey xale bi nga xam ne nag moo yëngal réew mi yëngal àdduna ñu naan ko waal Waly Ballago Seck Faramareen doomu Thione Ballago Seck tey bu demee ba toll fii adduna bi yëpp ñëw fii laaf nag yéen gis gars yi di rang ci ginnaaw pour le CD kooku c'est une fierté pour le Sénégal donc dañu gaawantuwaay dem laa fekk ma la FNAC. jaajëf waay grand bi. <laughs> les gars on est avec la superstar Sidiki Diabaté l'ami de Wally Ballago Seck. ça fait plaisir ça fait plaisir euh, l'album du frère va sortir le 6 inchallah je demande à toute la nation ivoirienne guinéenne sénégalaise française de toute l'Afrique de sortir très massivement et euh, de prendre l'album, d'écouter l'album, car c'est ça le vrai soutien. Il faut un disque d'or pour, euh, le Sénégal, pour mon frère, et c'est très important. Donc, euh, j'apporte mon soutien à mon frère Walisek et en ensemble, tous être libres, on est comme l'air. Ah, voilà, be free. En ensemble. <laughs> Merci Sidi. <laughs>